bismillah barkeb borom tuba wajaxal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arsida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamu aleykum taala wa barakaatu ginnaaw bi nu nuyoo ak a ñaanal ak a siyaar cheikh mouhamadul muntaxa moo yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal bu baax maam cheikh ibrahima fall sëriñ cheikh jëmb noonu it lañ koy ñaanalee bu baax borom tuba gépp ak mboolem jabootuk cheikh yi borom Touba yëpp mbokk yi ju dikk ak yéen ci fàttaliku Serigne Souhaïbou Mbacké Serigne Souhaïbou nga xam ne moom lañuy ñuy màggalal juróomi fan ci weeru koor ñuy ñaanal xalifaam bi ko fi nekkal muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye di ko ñaanal mboolem jabootam Serigne Souhaïbou gi yëpp mbokk yi fàttaliku Serigne Souhaïbou Mbacké Serigne Souhaïbou mi ngi gane jamono ca njaareem atum 1917 tombeeg juróomi fan ci weeru koor atum 1335 bi nga xamee ne sëriñ bi ñëw na njaareem ba am fa juróomi at ay waay juróom di sëriñ Touba Cheikhul Khadim mi ñu xam di yaakaar jaam ñëpp ak soxna Mariama Jaxate soxna Mariama Jaxate nag di doom ci Serigne Modou Assa Jaxate ak soxna Fat Silla Libaas ñuy askan woo xam ne sëriñ bi seede woon na ci ñoom ak dundee seen ñaq ak dundal alxuraan muy askanu njaxate ak silla waajuram wi nag di sëriñ Modou Assa Jaxate wax nañ ne ci maandu gim maandu woon ak dund gim daan dundee aw ñaqam da daan def bu waree tukki sax da daan yóbbaale yóbbaaleel boppam sangalus boppam war a baraay boppam ak daqaar ji nga xam ne moom la ci daan def am na bis bu mësaana dem cib dëkk nag bu fa gisee ku ko doy mu togg loo ko ko bu ko gisut ko ko doy mu toggal ko boppam am na bis am na ci gan gum demoon jox ñu koy defaral ab laax nee na ko ko doon defaral laax ba nag demee ci ak xir daal di cibb ci sangalaas boppam daal ciy dolli biñ ko joxee sëñ Modou Assa sëñ Modou Assa da ko da cee xewlu rek daal di wàccu nee na wu métti ba ñoom sax ñu mujj tiit waaye lam ko wax mooy xanaa da ngeen cee def jeneen sangal mu ne ko waaw dama cee amoonu xeer ba sama sangalos bopp daat ci def nee na mu ne ko man muudu asade du ma lekk lenn loo xam ne bayewu ma ko ci sama ñaqu bopp loolu moo war a lii kon moom noonu la meloon alxuraan nag ñu doon ñoo xam ne kenn mësuleen cee féete kaw fii ci senegal wala rawatina ci Afrique soowu jant gépp muy askan woowu di Mbakol ñooñu nag doy na sëkk ñu xam ne ñooy ay waajuram soxna Mariama Jaxate nag dafa teel a génn àdduna ci atum 1918 fekk boobu Serigne Souhaïbou at ak ñaari weer la am sëriñ bi daa wax ne nañ leen ko yóbbu ca wetu soxna Aminata Lo ndax ñoo bokk ay mbir ndax xam ngeen ne ñoom ñaar kenn ku ci nekk ñaari leer rekk la am ci biir kër sëriñ bi soxna Aminata Lo sëriñ Modou Moustapha la fi am ak Cheikh Mouhamadul Amin Baara waaye soxna Mariama tamit ñaari leer rekk la am biir kër sëriñ bi muy Serigne Abdul Ahad ak Serigne Chouaib boo xoolee ñaari leeri soxna Aminata Lo Serigne Modou Moustapha toog na fi toogaayu Serigne bi waaye sëriñ Baara toogu ko waaye da bind tey jëmale ci Serigne bi boo xoolee soxna Mariama Serigne Abdul Ahad toog na toogaayu Serigne bi waaye Serigne tamit ci bind ak jàng rek la nekkoon kon loolu doy na ci misaal buñ mën a misaalee ne dañoo niroo ay mbir. waaye boobu nag sëriñ bi daa daal di jël sëriñ Suhaybu jébbal ko soxna Xari Mbaar mi nga xam ne moo nekkoon waajuru sëriñ Abdou Samad Mbakke moom Cheikhul Khadim mu boole leen ñoom ñaar yor leen ba bi sëriñ Suhaybu di toll ci fer lañ ko joxaat nag maamam ja soxna Jeng Silla ab diir la ko yor ñu delloo ko njaarim bi mu nekkee njaareem nag ba am juróom-ñaari at ci la ko sëriñ bi daal di dalal njàng ca njaareem ginnaaw ba mu jox ko sëriñ Xamsatu Jaxate nijaayam ne ko li ngay nijaayam taxul ma jox la ko dama bëgg li ma def ci yow nga def ko ci moom mu indi ko Tuuba jox ko mbokkam sëriñ Alsaan Jaxate doomi sëriñ Jàmbaar Jaxate sëriñ Jàmbaar Jaxate ak kii nga xam ne mooy Serigne Modou Assa ñoo bokk lépp moom la ko andil mu fekk fi nag ki nga xam ne mooy sëriñ Abdoul Ahad ak Serigne Salim sëriñ Sohay bu wéy di nekk tuuba di jàng ak di tarbiyewu waaye muy tarbiye gu metti ba daanan ko nettali sax sëriñ bi naan ko ñoom de nekkin wan nekkee tuuba metti na lool waaye sëriñ bi sax daa mës da daan yónni ndaw mu woolu sëriñ am satu jaxate sëriñ am satu jaxate bi mu yegsee sëriñ bi ne bu leen yërëm ci dara ñu daan bay di jàng wax nañ ne fii université Touba bi nekk foofu la garab gi ñu daan toog di jàng nekkoon ci diirub ñaari at ci la sëriñ bu nag mokkal alxuraan daal di tàmbali di beqi jamono yooyu nag sëriñ bi daana leen woolu fële nga xam ne mooy ca njaareem bis sëriñ bi woolu ko njaareem mu ànd ak sëriñ Amsatu Jaxate bi nu egsee mu ne leen dem leen kër Mbàkke Jaxate ba ma woo leen bi bi yónni ndaw ne ko neel am satu na soxay bu ñëw te moom mu nekk ba ma woo am satu yabal sëriñ soxay bu mu ànd ak ndaw la dem ci sëriñ bi bi mu ñëwee sëriñ bi di ko defal ngan gu rëy ci xeetu bernde yu bari tey waxtaan ak moom ak di jàng alquran moom sëriñ bi ba tisbaar di bëgg a jot ci la sëriñ bi woolu sëriñ Amsatu Jaxate bi mu egsee ci kees gi sëriñ bi nekk dafa daal di wàcc ci suuf di raam jëm ci sëriñ bi waaye di maasale waale raamit yi nga xam ne mi ngi koy raam sëriñ soxay bi moom nee na li ko jaaxal mooy sëriñ am satu ni mu baaxe ak ragal yàlla gi daan sol mbaxana daan kaalawu ba ma jàppoon ni ab sëriñ moom ci sëriñ am satu layam waaye ma gis ma gis ko mu sol lu woyof solul mbaxana jël kaala gi takk ci ndigg li nee na mu egsi nuyoo sëriñ bi daal di toog sëriñ bi di ko attaayaal ca loxoom bu tedd ba waaye lépp lu mu siy def day jàng alxuraan ba noppi daal di ne bu xam nga lu ma si jublu sëriñ Amsatu ne ko Mbàkke xamu ko mu ne ko dama bëgg nga fonk alxuraan te am ci noonu la waxtu julli wi jot sëriñ bi leen waaj leen bu nu jullee ngeen dellu ngeen dellu Tuuba noonu nag ci lañ daal di dellu see fi nga xam ne mooy Tuuba ci ginnaaw bi ñu jullee ba noppi wax nañ ne sëriñ bi sëriñ Isaa jenn la leen boole loon ngir mu waajal leen lu leen mën a yóbbu ñu dellu see nag xam ngeen ne ca jotaay boobet sëriñ bi doon na wax sëriñ bu ndax sëriñ Suhaybu daa wax ne neexaayu xarkat بإنحاء الشكايات العلم قيمتهم والحلم ديدنهم دون دعاوي وإنكار المقامات أين لا تقدسان mottali seen mbindum kaamil sëriñ Moodu sëriñ Amsatu Jaxate nag daal boole seen ñeenti kaamil ya muy sëriñ Saaliw sëriñ Abdul Ahad sëriñ Suaybu sëriñ Abdu Samad daal di leen seen mag ju baax ja sëriñ Moodu Moustapha ma ko mate woon sëkk ne ko sa waajur wa lii la ma santoon ci ñoom def naa ko ci ñoom ñoo ngi noonu nekkuñu fi yaafi ne sëriñ Moodu Moustapha nag yóbbu leen tindoo di ñuy woyle seenum jàng waaye diir bu gàtt lañ fa jàng mu jë mu jëlewaat leen fa indi leen fii Touba fi nga xam ne mooy ci Serigne ñu nekk fa di woyle seenum jàng diir bu gàtt nag ci la Serigne Souaïbou mujj doon ku fees dell doon baxarul ba xóoru fee almi waaye doon koo xam ne ko sàmm ku ragaloon yàlla moom Serigne Chouaib kon mbokk yi dañuy taxawlu fii te di leen dig seen numéro ñaareel ci kii nga xam ne mooy Serigne Chouaib ak bundam te muy ay njariñ rek waaye nu ñaanal bu baax xalifaam ba Serigne Cheikh Ahmadou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem jabootu gépp waaye di ñaanal bu baax Serigne Chouaib Amsatou Mbacké moom Serigne Chouaib ak mboolem ahlu xasida yëpp wasalaamu aleykum الله تعالى وبركاته